Info Sénégal, la CNT sénégalaise. mbokk yi daleen ak jàmm ci seen chaîne mag bi di Sénégal info ngeen taamu di fi taataane seeni xibaar ñu ñëw ak yéen ci xëti yéenekaay kay tey di talaata 14 mai 2024 xëti yéenekaay kay dañ koy tàmbaleeg Sud Quotidien mi xëy fësal ci aw xëtam bu njëkk mise en service du BRT ce mercredi te mooy ndorteelu dawuk BRT bi nga xam ne booba tey mi ngi ci ak xiini min Walf Quotidien xëy fësal ci aw xëtam bu njëkk yoon yi président Bassirou Diomaye Diakhar fay yi mën a jaar ngir wàññi njëg yi mu ne loolee fixé nañ ko bu keroog gi fukki fa ak juróom ci weeru mai Walf Quotidien tudde ko test majeur pour Bassirou Diomaye Faye leneen loo xam nit fasale ko mooy wàllu mbëkk mi lu toll ci deux cent cinquante deux yu bëggoon a dem ca Espagne jaare ko ci euh, géej gi mu ne ñooñee jàppale ñu leen tirbine yéen kaay fësal ci aw xëtam bu njëkk ne boo sàgganuwul ñi nga xam ne ñooy bulañte yi mooy ñi euh, defar mburu bi te di ko jaay danañ yokk seen prix ndax daal woyefal bi muy courant bi moo leen di bëgg a yóbbu la bi siina leneen loo xam ne it euh, xëyee na ko mooy euh, accident bi am euh, démb te ñett ñu ci ñàkk seen bakkan délégation spéciale yi ña ngi koy ci ca yi bu Médina bi nga xam ne Bamba Fall moo ko jiitee yoor yoor yéen kay xëy fësal ci aw xëtam bu njëkk rapport Cour des comptes 2012 2016 nee na yorin wu bon bi nga xam ne maire Ousmane Gueye mi ñu épinglé yéen kay bi ne lim ne moom la jëfandikoo ci gasoil ci diggante juróomi at na la ko yàlla nëbb source a xëy fësal euh, nataalub Mabouba Diagne mi ñu dénk wàllu euh, mbay mi ak euh, càmm gi muy xamle ne solo solo si mooy Sénégal moom boppam ci mboolem li muy dunde le regard yi yéen kay xëy dem port ak passation de service ba fa am di port autonome de Dakar Mountaga Sy mi nga xam ne génn na fa définitivement leneen loo xam ne it fësal na ko Fatou Kiné Diakhaté muy directrice euh, des cabinets adjoints euh, président Bassirou Diomaye Diakhar euh, Faye Walf Place moom la xëyee Fatou Kiné Diakhaté mi nga xam ne tabb nañ ko yees mu nekk directrice des cabinets adjoints bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ne di bu njëkk jigéen di occupé boobule poste nee na it Bassirou Diomaye Diakhar fay mi ngi calmé féministes yi nga xam ne dañu doon findoo ko walgasu ne jigéen ñi dañoo néew ci ngornamang bi mu ne loolee moom

xam ne kenn euh, gisu ko l'évidence yéen kay fësal ci aw xatam bu euh, njëkk ne euh, fayuk opérateur yi ak ministre bi lu tax loole mu tagga tembe leneen loo xam ne fësal na ko mooy Sénégal ak Maroc ñi renforcer seen jëflante ci wàllu commerce le mandat yéen kay fësal ci aw xatam bu njëkk nataalu président Macky Sall mi dëgmu mel ne ku jaaxle yéen kaay bi nañu Macky Sall ñu ngi koy tudd di tudd CPI di Cour pénale internationale leneen lu mu waxit di Amadou Ba miñ na ñëwaat na démb ay ñoñam ñoo ko teextu la solo yéenekaay euh, xëy ci mbay mi ak dina wax jiw wu baax wekk euh, nees di def ba mu gën a ñoŋ révélation yéenekaay nañu màggalug Tuuba le 23 wala le 24 août 2024 la war a doon dem soob na borom bi ma ngay wax nag euh, nees di def ba fàggu ndax ku ne xam na na ci nawet lay am te day am ci jamonoy fi ndox mi gën a bari tàggat yaram record yéenekaay fësal ci aw xëtam bu njëkk Pape Makhtar Sarr ca Angleterre Tottenham City à 19h mu ne Pape Makhtar Pape ak défi yi koy xaar leneen lu mu fësal mooy nataalub Sadio maane mu ne Bayern dañoo respecté wut Sadio Mané stade yéen kay moom la xëyee Pape Matar Sarr Premier League Tottenham Manchester City mu nekkoon seen xëti yéen kay mbokk yi ñu ngi leen di jaajëf lu baax a baax di leen dig daje beneen jotaayu xibaar jërë ngeen jëf nu yendu jàmm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 Dakar rond-point 26 cité Damel ba de les livrer partout 77 335 14 14 77 335 14 14.